man momodou camara waaw waaw lu ma doon ñaxtu mooy fan euh, ngay dem man la euh, kër masar laa jëm quoi waa situation bi fii ci mais njëkklantu bi vraiment dafa metti trop bu ñu bu ñu état bi waree jàppale ci lii surtout grand yof fii man njëkklantu bi fii sa grand yof man ndax ma jaaxal trop nga bëggoon nag état ci boppam mu yóndee ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ñu koy xoolal ci euh, tali yi mu ñëw di moom mii si boppam muy xoolal boppam ndax xam nga ñun xëy na ya xëy na euh, suñuy mag yàgg nañu di wax man dama xamul état ba xam dafa la ne déggut wala ñun ko duñ koy jox loolu léegi ñun bëgg na nañu xam ñun ndaw ñi nga xam ne ñu ñooy ñu ñu ñooy positif léegi mais mu jàppale ñu ñoo xoolal ñu li njëkkalantu bi fii dafa metti dafa metti ah fii léeg-léeg da ngay njëkkalantu sa nit sa dra nit sa ñëw sa am na ñoo xam ne duñu njëkkalantu dañu ñëw pour tafloo ah jël sa téléphone bon su fekk yàlla xam na ni lu yàlla xam dafa doy état daal nag ñu jàppale ci lii lii daal wala cëpp ku ci toogati bépp ku fi bépp bépp état bu fi toogati nam ñu jàppale ci lii dëkk bi dafa xat. kat di nga xamne ken xamul qu'est-ce que se passe waaw seigne bi ñang nga tuddu mbacke sam waaw seigne ñu sonna na yow lan nga fi chauffeur waaw situation bi fini ni tay eh, ñun eh, bu doon eh, suñu responsable yi pastef gi ñu am fini kon fi bo fi dikke tay do fi jaar sanction yu métti dañu koy teg ngir bëgg or fii am ordre ñun ñooy sonn da ngay jugee ñu woola téléphone nga jugee stade war a ñëw fii client yi daw njëkkanteeg yow yi nga jaar ci tànku client ñu yóbbu sa permis corporel tey boo fi gaañee client ñun ñooy sonn ñun ñoo yori kër ñooy bëgg a dee lii nii gënaluñu amuñu si benn pexe autorité situation bi man daal li ma leen di ñaan mooy ñu ñëw dimbali ñu jàppale ñun chauffeur si parce que ñun ni lu mën di am ñun la ñuy woo tey jii bu campagne bi tàmbalee ñun la ñuy jël fu ne la ñuy yóbbu bu élection amee ñun ñooy jël seen i militant di leen yóbbu ñu voté ji ab chauffeur mosoo koo gis mu dugg ci bureau de vote di voté parce que ñun ñoo leen di yóbbu ñoo leen di andi buñ ñu soxlaa nag ñu jële jël ñun ñëpp andi ñu fii kon bu ñu nekkee si situation dañ ñoo war a gersu dañ ñoo war a gersu parce que lii métti na chaque jour ñu joggi fi si tànku client dangay moytu bay bëgg a dee client yi buñ dee daw coono gi ñuy fii ak manqué oto bi ñuy am fii du manqué oto ñàkk fu ñu taxaw bay taxaw fu sori ñu ñuy woo ñuy dajaloo di ñëw fii looloo ko waral lii nag gën a ñu te sonnu nañu sonnu nañu loolu te ku ñu si dimbali ñu jël bu